muy bëre bëre dem xeexi ji moo da dafa dem commencé bëre xam ni kurfe ñuy jëmul kër mu bàyyi ñëw téye micro sama doomu nee man Modou Anta Modou Anta Modou Anta man dama ko bëgg xamul tax dafa am fu ñu jaar man ak moom ndeysaan moo tax ku ma bëgg a ku ma bëgg a jaxase moom da ngaa xamul ndeysaan yàlla moo ma boole ak Modou Anta ma bëgg ko nag dama ko bëgg ndeysaan xam-xam bu muy yullu si làmb mu neex ma may jàngat si moom waaw waaw xam nga ñu doo soxor waaw Modou Anta ma daan teeti nan ma sëriñ defal ñu defal nii naa leen baawam keroog daf ma xool ni may egsi nga. ndeysaan bokk nga si course gi. loolu grandeur la. nee naa leen mbër sax fàtte bés ba mu bëre moo doon ànd fàttali ko man mii sax bis bi ma njëkk a ñëw ci laam moo ma ko fàttali tey. yow dama ko xam kenn du moom yàlla yàlla dafa cat. yàlla may ko jàmm. waaw waaw xaar yàlla nga xaddi. man sëriñ maa ko wax. waaw moo doon ànd il est le meilleur. waaw macha allah kenn du nit du soxor. waaw loolu yàlla dama waalo laa dëkk. macha yow ki ñaanoo yow say maam ay buur lañ waaw yaw yow boo xiñaanee da ngay tooñ. damay tooñ yow yow bëgguma tooñ. waaw waaw yow yow say maam bañuy baax boobu baax bëriwul boo soxoree rek wéen. walaay Seyna yaa baax. ca ndeysaan ca toog len nañu xool Birima nañu xool Birima mu sa benn baag ba waaye démb xam leen ni démb Lac Rose def na open de presse am te amul benn problème moo ki nga xamante mooy Papa Ndoye kon yéen waa Guédiawaye bu leen mujjee pusu mu réer si toog leen Jackson jàkkaarloo presse bi bëgg leen teg ñi nga xamante ni. ñooy ay farsam mu jeex ku nekk ñibbi si jàmm. kontaan naa kontaan naa kontaan naa maa ngi si I'm there. I'm there. I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, gars yi ñu ngi jégalu gars yi ku ne da ngaa bëgg a feeñ te baaxul. ca biir maa ngi noonu. sa bi ñu ngi tàkk ami andaw de nuyu naa la bu baax a baax ndeysaan ndeysaan mais tey jii suñu jigéen moom ay anniversaire moom Saliya Diallo la Lion Dieng Zeyna Saliya tey mooy anniversaire ñu koy souhaité une bonne anniversaire moom Saliya gudd fan ak yaram aaju yu faju sutura xewal di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ndeysaan teel a ñàkk papa ak yaay rek laay jooy si moom yal na yàlla guddal fanam bàyyi ko mu dund ba dund sàbbi gi. Lambalog doomu géej la bu defee lii du jaaxal kenn waaw Lambalog. laa la bu defee lii warul jaaxal kenn parce que doomu géejawaay géejawaay la li ma la wax rek bo dëgg ma rek ma dam yaay maa ngi lay ziar waaye ku ne am nga dëkkuwaay waaw làmb la géejawaay la ku ne am nga dëkkuwaay a nekk am nga droit far raay la dëkk te bu mbaru ginnaaw raay buy bu ne moom nga far ah soo buy bu ne jël soo nga far ku ne fa ngay dëkk maa la wax loolu

man tamit dama am waa kër quoi. waaw non ni la xale gàttandoo man sax sama yaram da cee daw. gisee bi tey. sama yaram daw na ñoom ñaar ñëpp. waaw. Raglos bi ñu xeex am xam. nañ mais mais combat bi da am lu ci xew. parce que Boy Niang dafa duggoon kër du ba leer daan mat daan rab Jackson bi daa dugg ko ñam lañ doon daan fa ki nga xamante ni mooy euh, Pam Ndoy di rafetlu tey mu war a dajeeg mat Jackson dafa duggoon kër Lac Rose daan. waaw li bëre bëre dem xeexi ji moo daan dafa dem commencé bëre xam ni kur fee ñuy jëmul kër mu bàyyi ñëw téye micro sama doomu nee man moo àndoon moo àndoon moo àndoon man dama ko bëgg xamul tax dafa am fu ñu jaar moom ndeysaan moo tax ku ma bëgg a ku ma a jaxase ak moom da moo ma booleeg ma bëgg ko na dama ko bëgg ndeysaan xam-xam bu si làmb neex ma may jàngat si moom waaw waaw ak doo soxor waaw Modou Anta ma daan teeti naan ma sëriñ defal ni defal nii nee naa leen waaw waaw. keroog dafa ma xool ni may egsi nga. ko bokk nga si course gi. ndeysaan kon loolu grandeur la. nee naa leen mbër sax fàttali na bés ba mu bëre moo doon ànd fàttali ko man mii sax bis bi ma njëkk a ñëw ci làmb moom ko fàttali tey. yow dama ko xam. kenn du ko yàlla yàlla dafa cat. alaamaaleykum yàlla may ko jàmm. waaw waaw xaar yàlla nga xaaj. maa ko wax. waaw Modou Anta il est le meilleur. waaw macha allah loolu yàlla kenn du nit du soxor. waaw loolu yàlla dama waalo laa dëkk. macha allah. ki ñaanoo yow say maam ay buur lañ waaw yow yow boo xiñaanee da ay tooñ. damay tooñ waaw yow yow bëgguma tooñ. waaw waaw yow yow say maam ba ñuy baax baax bëriwul boo soxoree rek ween. walaay Seyna yaa baax. ca ndeysaan ca toog leen nañu xool Birima nañu xool Birima mu sax benn baag ba waaye démb xam leen ni démb Lac Rose def na open de presse am te amul benn problème moo ki nga xamante mooy Papa Ndoye kon yéen waa géej waay bu leen mujjee pusu mu réer si yéen toog leen Jackson la presse bi bëgg leen teg ñi nga xamante ni. ñooy ay fansam mu jeex ku nekk ñibbi si jàmm. kontaan naa kontaan naa kontaan naa maa ngi day nekk kay la mais mel ni tey deret géej waaye dafa yëngu ci yow waaw tey ba ma ñëwee ba ma ñëwee ni xale yi jógee yuuxu waaw dama sama xol ma tooy. mais uh-huh. uh-huh. waaw macha allah waay kii may. Uh-huh. gën a liggéey rek ngay fayam. mais nag gars a sama tamit dama am waa kër quoi. waaw. la yow. non sax sama yaram da cee daw. xale bi na ñoom ñaar ñëpp. waaw. Raglos bi ñu xeex rek nii. Hmm. waaw si la duggee kee daway saa naan. waaw tey booy bi ni mu toll. si la duggee phase nañ xam. mais mais combat bi am lu ci xew. waaw parce que Boy ñaa dafa duggoon kër du ba leer daan mag daan rab jamono jii daa dugg ko ñoom lañ daan fa ki nga xamante ni mooy euh, Pam Ndoy di rafetlu tey mu war a dajeeg mag Jackson dafa duggoon kër Lac Rose daan.